boo toogee ba nawet yi ñëw da nga ciy góorgóorlu mais solution ba avant nawet kon nag moom bu toogee làmb ci poosam camion yi seen luyaas nga xamante ni oto bu ne da nga koy boo ko bëggee luye da nga koy bëgg luye ay deux cent cinquante mille mu war cee jël ay dix camions pour ñun war a topp dëkk bi yëpp yamalu ko kër xaal rek nag parce que fu ndox am rek dem nañ fa léegi bay doo rek si nii man la woo teg loolu sama loxo ma wax ak borom oto yëpp ñoom ñëpp kenn ku ñu jël engagement bu fay leen ca maire yëgul état yëgul jëf ci ko nit ñi xam ko xam ne da ko def ci propre moyen la koy def yàlla lay yàlla ko yàlla yokk doolu lay sant yàlla doolu lay sant doolu laa ñaanal itam ndax yàlla doolu la sutura defal la li nga bëgg sa bëgg-bëgg yaa xam yàlla na la ko yàlla defal ndax itam ñun amuñu lu sunu fii ku nu ci dimbale rek ñu sant yàlla sant la jërëjëf kontaan nañu lool ndax li nga def neex nañu lool kontaan nañu ci lool bëgg nañu ci lool jërëjëf yal na yal na la yàlla gis yal la yàlla gis yal na la yàlla jàppale kontaan nañ ci lool. ñetti fan yi waa Kulu Ndiaane ñu ngi dund lu metti mhm. ndox mi ngeen gis nii nag wàññeeku na mais ëppoon na fi am na ay population yoo xam ne loru nañ ci kon boo ñëwee fii déplacé wu ñëw ci heure bi te tey ñu xool sa journée dañ surchargé nga am taxawaay boobu ñëw pour xool jël ci ay mesures avant les autorités non vraiment vous avez du mérite ñu ngi lay félicité di la ñaanal yàlla di la wax ni wax deug yàlla li ngay def ci Tivaouane kep ku bëgg Tivaouane bëgg lu baax kontaan na ci parce que damay faral di wax ni amoo aucune fonction élective ni nominative kon tout ce que tu fais da nga koy def par amour pour Tivaouane donc li nga ci jublu yàlla na ko yàlla fay sachez que daal ñun déplacement bi rek c'est déjà quelque chose pour nous après lu ci topp rek nga xam ni wax dëgg yàlla ñun déjà am nañ une satisfaction population yi nag am na ñoo xam ne ay sinistrés la mbënn mi laal na leen leen jàppale tamit soxla yoon la fi jaar la xanaa élection yi jub si moo tax la la loolu la meroon nag mhm. lu ñuy def ci Tivaouane tamit ñun kenn boolewuñ ci lampe solaire yi ñuy dégg dañ mhm. dañ koy dégg lépp luy am ci Tivaouane dañ koy dégg waaye duñ ko gis mhm. kon nag moom buñ ko gisee buñ ko diggee dinañ ko gëm ndax lu mu seqal ñun ñu ko def Ablaye bu doon xaar Macky Sall tey jii kon du fa ñëw. parce que ñëw tànkam yi Macky Sall yóbbalu ko moo jóg xam ne doomu Tiwaawan la bëgg Tiwaawan di toppatoo doomi Tiwaawan yi tax mu jóg taal ay otoom ànd ak ay nitam dugg ci koñ yi di xool li leen xam moo leen metti noonu la nit di def njiit noon lay def ndax njiit boo àndee ak moom te xamul yaay kan toppatoowu la xamul la ga am xamul la nga ñàpp xamul la la metti jërul ngay ànd ak moom te Ablaye Ndiaye toujours da koy wax moom boo waxee mu ne Macky Sall joxuma salaire Macky Sall embauché wu ma sama alali bopp moom laay dimbale doomu aadama yi waaye na wolof Ndiaye ne koy raam di la bokk bu amee on daa dugal la ci. Abdoulaye Ndiaye amul ndombal tànk Macky Sall falu ko dara muy jàppale doomu Tivaouane kon bis boo yal na ko yàlla may ndombal tànk mais bis bu ko yàlla may ndombal tànk duñu ko rëccu. te ñun day ñun ñun waa kër Cheikh Awa Balla yaakaar naa ne képp ku ñu jàppale ci ci dëkk bii am naa yaakaar di nga dem. parce que école set bii de kenn ku nekk nekk Tiwaawan xam nga kenn koy daga daan wax naan bu bu élection amee ku perte école set perte nga Tiwaawan waaye Ablaye Ndiaye de école set bu soobee yàlla yàlla na ko yàlla may li mu li nga xam ne moom la bëgg ci Tiwaawan yàlla na ko yàlla def waaye ñu ne ànd na nag moom tey ànd ndax lii dafa na ci nga sol sa dàll ñëw xool ko xool li mu ñàkk xam li mu li mu jooy dafa neex dugg ci ndox mi xool dafa neex Ablaye Ndiaye daal noo ngi koy ñaan ci na ko yàlla may li xam ne moom la bëgg ci Tiwaawan yàlla yàlla may ci barke leen di sant di leen dañuy ñëw pour masuwu leen si ndox mi ñun ñu ngi toog suñu kër xëy na ndox mi yàlla defal ñu dund suñu kër ndox fu mu dugg bi si kër fu mu dugg si kër koo ñi rek dafa mën suuf la moo tax ñu ànd ak euh, waaye ji xam mooy euh, oto oto oto oto oto manqué yi pour xoolal moom situation dëkk bi mais dafa ne bala maa incha allah moom li ñuy bëgg mooy bu fekkee oto bu disponible léegi ñu fexe ndox mi nekk si kër gi tey bu fekkee oto disponible mais demee oto yëpp dañu dugg si manque manque manque si mu génn moom dañu génn ndox mi foo si fekk aussi li ñu ko mën a kii yëpp dañ ko génn incha allah foofu ngeen nekk si jàmm waaw loolu daal dañ ko taxal incha allah